mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey aaya cent soixante onze ci suratu nisa ci suñu borom di waxee ni ya ahlal kitab la taghlu fi diinikum alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom jalla waala ci lim ñu defal tawfiq ñu dajawaat tey ci ab néegam ci suñu fukkeelu daje ak benn ci weeru màgg wi di chehru ramadan di fas yéene jàng ab téeréem di ca sakku suñu borom jalla waala jagleel ñu la yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digge woon moo doon wax ne majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah yatluuna kitaab allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa gashiyatuhum alrahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده dajemukk benn mbooloo ci néegu borom ba di jël téere bi yàlla ba di ko jàng seen biir lu dul yàlla wàcceel leen ak dal ci seeni xol yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe yi ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jataay bi ak képp koo xam ne yaa koy déglu ak foo mën a nekk ci kaw suuf fayal ñu it ña nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg moom di leen ko jottali xam naa lu jiitu rek dañu am suñu benn mbokk bu ñuy nekkal fii ci tafsir bi bés bu nekk muy ku ñu wax Issa Kan moom ñoom band ñi ñoo nekkoon di liggéey soxnam dafa faatu ñi ngi ko war a waajal suba incha allah ci jàkk bi jàkkaarloo këram fële ci Nord Foire war koo denc carmeel yoo fii bu onze heures jotee yal na yàlla jéggal ko yërëm ko jéggal ñu yërëm ñu ak bépp julit kon incha allah bu Cheikh Ousmane pare ji lañu suñ bind bu jëkk waaw
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا بارك الله فيكم suñu boroom jalla waala mu ne yaa ahlal kitaab ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a nekk ñooñu téere yi muy yahudi ak nasaraan laa taxlu fi diinikum e waay bu leen jéggi dayoo ci seen diine ji bu leen ëppal ci seen diine wala taqulu ala allahi illa alxaq iwaay bu leen waxal yàlla lu dul dëgg dëgg kese innamal masihu isa ibnu maryam kii di masih isa doomi maryama day rasulullah la moom da waay yonentu yàlla la wa kalimatuhu alqaaha ila maryam nekk na yit la nga xamee ni mooy kaddu goo xam ne nii dañ ko yónni ci la nga xam ne nii moom mooy maryama dañ ko sànni ca maryama ñu ngi noonu kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruuxum minha nekk ruux goo xam ne ma nga bawoo woon ca borom bi jalla waala fa aminu billahi wa rusuli gëm leen yàlla ca gëm ay yonentam wala taqulu salaasa e way bu leen nekk naan yàlla ñett la intahu xayran lakum bàyyi leen loolu loolu de moo gën ñeel leen innama allahu ilahun wahid xam leen ne yàlla day benn yàlla kese la subhanahu an yakuna lahu walad sell ñeel na ko ci mu koy ñeel doom lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na ko lépp lu nekk ci asamaani ak suuf wa kafa billahi wakila doy na yàlla rek ci koo xam ne dañ koy sukkandikoo di ko dimbalikoo lan yastankifa almasih du jomb mukk kii di almasih an yakuna abdan lillah ci muy nekk ab jaam ñeel yàlla wala almalaikatu almuqarrabun du ko jomb it malaaka yi nga xam ne ñoo gën a ñoom lañ jegeel borom bi jalla waala wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir koo xam ne da nga jombulu jaamu yàlla rëy rëylu ca loolu fa sa yaxshuruhum ilayhi jamia dana leen dajale yowmal qiyama jëme ci moom mboole ñoom mboole seen mi ngi noonu bokk julit suñu borom day wax ak yahuud yi ak nasaraan yi la muy wax ak ñoom ba pare netti li ñu ko mooy ngiri julit ñi bañ a jaar fañ jaar bokk na ci fu yahuud yi ak nasaraan yi jaar mooy jéggi dayoo ci seen diini suñu borom mu ne bu leen jéggi dayoo ci seen diine yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam tegte ne iyaakum walxulu innama ahlaka allazina min qablikum alxulu e way moytu leen ëppal ñi fi jiitu woon dara yóbbu leen woon yàq seen diine lu dul ëppal commencé qawmu nuux yàlla defoon ci ñoom sëriñ su baax wadd suwa yaxuusa yaxuusa ak nas juróomi sëriñ yu baax daan jàngale diine bañ fa jógee seytaane taaral ci seen bopp ne sëriñ si nañ leen wutal ay statue ngir dañu bañ leen a fàtte defaral leen ku nekk gox ba nga nekk statue ñu dem ba yàgg nit ñi di màggal statue yooyu ba looloo waral yàlla yónni njëlbeenu yonent looloo waral yàlla alak waa suuf fan jaaroon diini ci la solo ñu jaar ba yahud yi ñëw am seen sëriñ bu mag ñu ngi noonu sëriñ bu ñu tuddee Uzayru Uzayru moom it ñu fonk ko màggal ko ba yegg ci na doomu yàlla la subhanahu wa ma yaquluun nasaraan yi ñëw yàlla yu nit ñoom yonent bu tedd di Isa ibnu Maryam def ci moom kawteef ngiree amul do amul bàyyi ñu dem di ko màggal di ko màggal ba ne doomu yàlla la gannaaw ba yahudi bon yi ne doomi njaaloo la nasaraan yi wax lu gën a bon la yahudi yi wax lañ wax moo gën a bon fuuf te muy ñu ne ñoom doomi yàlla la subhanahu ama yaquluun loolu it moo tax ba mbokk diine lislaam it xoolal xoolal lan moo yàq diine yi lu ëpp ci ñun tey mooy sëriñ si nga xam ne dañu fay nekkoon di jàngale diine di woote jëme ci yàlla ñu ca baax ña nga xam ne ñoo ca baax bokk di woo nit ñi jëme leen ci yàlla bañ fi jógee nit ñi au lieu ñu xool lañ doon jàngale ngiree jaar ci dem ci yàlla dañoo far doyloo sëriñ ba ñoom dañoo far doyloo sëriñ ba ba ñuy waat ci turam la ñuy waat ci moom la ñuy yaakaar yowmal xiyaama jàpp nañ ne lu mu leen fa joxul soxlaaluñ ko soxlaatuñu yàlla dara dara loolee mbokk jéggi day la goo xam ni day yàq la nga xam ne muy diine looloo taxit bu nasaraan yi yóbbu Isa ibnu Maryam da nga gis ñoo xam ne seeni sëriñ paasala nañ leen foofu sax loolu mi ngi noonu borom bi ñëw ci chrétiens yi ne leen isa ibnu maryam mii du doomu yàlla yenente yàlla rekk la kaddu la gu yàlla yónni woon ci maryama mooy kaddu kun fa yakun nekkal mu daal di nekk ca loolu yi tamit mu nekk lu yéeme ci nit ñi waaye bu ñu xoolee suñu borom ma nga leen di tontu feneen te mooy ki nga xamee ni nii mooy Isa yéem na leen waaw aadama moo gën a yéeme moo tax suñu borom ne inna masala Isa inda allahi ka masali aadam xalaqahu min turab suma qaala lahu kun fayakun kii di Isa au moins ci doomu aadama la génne am na yaay aadama amul ndey amul baay ci ban la génne yàlla ne ko nekkal aadama mu nekk aadama kon mooy kaddu ga yàlla yónni woon ci maryaama ak ruux goo xam ne yàlla ko def mu ànd ak kaddu googi ba mu nekk isa muy ruuxun minhu borom boobu subhanahu wa taala da ngay gis ni borom bi nag mu ne gëm leen yàlla ci gëm ay yonentam ñu ngi noonu ngalla waay bàyyi leen di wax yàlla ñett la yàlla ñett la soo demee ci nasaraan yi am na ñoo xam ne dañ ne yàlla yàlla la maryaama yàlla la isa yàlla la ba boo xoolee ci seeni ñaan la ñuy ñaan la senti mari lu ci bëri mu ëpp la ñuy ñaan yàlla sax ñu ngi noonu di ko ñaan isa muy ñett yo bokk na loo xam ne nii borom bi subhanahu wa taala jàngal nañu ko te jeexitalu suratu nisa suñu borom mu ne yow isa ibnu maryam wala boog ci saar bii ñu jëm di suratul maida dañ ko jàng ca fin ba waaye yow isa ibnu maryam yow yaa waxoon nit ñi jël leen ma ak sama yaay def leen ay yàlla in a anta qulta linnaasi ittaxizuni wa ummiya ilahayni min duni illah ndax yaa waxoon loolu isa dana fay weddi fukki weddi ngir tiitaange bisub keroog gis ngeen donte ne am na yeneen nasaraan yoo xam ne ñoom seen trinité boobu ñuy wax ñoom solaasa lañ ci jublu mooy yàlla ak isa ak ruuxul qudus ñun li ñuy tuddee jibril muy le saint esprit ñoom dañ ne yàlla ak isa ak saint esprit benn rek la ñett lañu waaye benn lañu soo demoon ahmed didaad rahimahullah ci daje yam daan daje ak ñoom mu ne yéen yéen ne ñett le père le fils ak le saint esprit ana ban langue ci àdduna moo am un plus un plus un égal un ban langue ko am damay kon ñetti ngeen di jaamu gis ngeen ñetti ngeen di jaamu ngalawaay bu leen wax salaasa intahu xayran lakum gis nga suñu borom ci yërmandeem wax ju bon jooju bañ ko waxee nee na asamaan xaw na xotteeku suuf xar mëdd leen montagne yi sax xaw nañu daanu waaye mu ne intahu xayran lakum bàyyi leen wax jooju moo gën ñeel leen te bés buñ ko bàyyi woon yàlla jéggal leen borom bi nag ne yàlla xam leen benn yàlla kese la isa du yàlla mariama du yàlla nuux du yàlla jibril du yàlla muhammad du yàlla al ilah ki nga xam ne dañ ko war a yaakaar jublu ci moom di ko toroxlul di ragal ay ay mbiram kenn rek la waaxid ilahun waaxid sell ñeel na ko ci muy am doom looloo tax heure bay wax subhanallah mooy sell ñeel na yàlla ci doom subhanallah sell ñeel na yàlla ci nawle subhanallah sell ñal yel na yàlla ci lum tële subhanallah sell ñeel na yàlla ci lum réere subhanallah sell ñeel na yàlla ci ñuy xam ni la mel ila axiri mooy subhanahu an yakuna lahu walad sell ñeel na yàlla muy am doom balli am mooy mboolem nekk ci asamaan ak suuf moo ko moom kon isa wax leen abdullahi wa rasulu mi ngi noonu wax leen jaamu yàlla la yeneen ci yàlla la jeex na ndax lépp nekk asmaan suuf moo ko moom suñu yonente alayhi salaam lu la doon wax laa tatruni kama atarat nasara ibn maryam fa innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasulu ey waaye bu leen ma tagg di ma yëkkati ni chrétiens yi bakk yëkkati wu na isa man du ma dara lu dul jaam kese wax leen jaamu yàlla ak yonente yàlla léegi yow sëñ taam bi ngay taayo loolu nga wax de ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu da ngay jàpp sànq loolu nga wax de ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu seede naa ne yonent yàlla jaam la yonent la jaam la kenn du ko jaamu yonente la kenn du ko weddi mi ngi noonu abdun la yu'bad nabiyun la yukazzab jaamu yàlla la kenn du ko jaamu waaye mooy yonent yàlla bi kenn waru koo mooy ci ci ay ndigal yam indi doy na yàlla yëtti ku ñu wàkkirloo te boo gisee nit ñi di màggal la ñuy màggal dañ leen di jël nag teg leen place yàlla léegi comme ni ma la waxee bu bëri ci Sénégal yi ñu wax yowmal qiyaama lu ma fa sëñ diw joxul soxlawu ma ko loo yaakaar yaa ngi ko yaakaar ci sëñ diw suñu borom mu ne mu ne de yàlla doyoon na kafa billahi wakila ne leen ci jiitoon mooy nasaraan yi xoolee seen calendrier bi trois cent soixante cinq jours yëpp am na saint bu ñu ko jagleel yaa gis leen ni ci tubaab yi bu ñu jaaxlee dañ naan à quel saint se vouer mooy léegi ana ban yàlla la ñu war a yaakaar ñee ne saint Matthieu ñee ne saint Paul ñee ne saint Vincent ñee ne allah ñun julit ñun lañ ñu jàngal ma li yàlla jàngal ni yahudi nasaraan yi mooy kenn rek la ñu war a yaakaar mi ngi noonu muy jàlla wa ala te doy na ku ñuy wàkkirloo doy na koy dénk sa bopp doy na koy dénk sa njaboot doy na ku lay wóotu ci lu mu mën a doon doy na ci koy yaakaar doy na ci looy ragal kafa billahi wakila borom bi nag ne waaw yéen da yéen a tuumal isa di ko juñ ak yàlla waaye isa day du jombal boppam nekk jaamu yàlla abadan mi ngi noonu loolu tax aay yu bëri ci alquran wax na yaa bani israil man jaamu yàlla la yonent yàlla la mu yàlla yónni ci yéen borom bi ne malaaka yi gën a kawe it almuqarrabuun ñoom jibril ak mikaal israfil xamalatul arsh wa man xawla ñooñu nga xam ne ñoo gën a kawe gën a tedd du ñu jomb nekk ay jaamu yàlla ñoom ñëpp la leen lay seen engagement mooy ku gën a feeñal ak jaamu yàlla ci yàlla borom bi nag ne képp koo xam ne da ngaa jombulu jaamu yàlla te mbokk am na ñoo xam ne jombal nañ seen bopp yenn ci jaamu yàlla yi dem ca jàkka ja cinq fois par jour te jaxasoog mbooloo mi am na ñu bëri tey jombal nañ ko seen bopp ndax loolu buñ koy def dañuy lakke ci nit ñi donc da nga war di laqatu jafe nit ñi derang pour gis la am na ñu bëri ci ñoom jombal nañu dem makka lambaayu ànd ak mbooloo mi nan la bayk allahuma la bayk bi lay gis kilifa diina yu mag gérer des milliards des milliards fu nañu dem fa suuf nga dégg dem nañ makka loolee mbokk ay mbir la yoo xamee ne nii suñu borom yàlla jàll wa ala nee na kii nga xam ne daa jombal boppam ak jaamu yàlla ki réeréelu jaamu yàlla bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani abda bisa ngi ñëw alaxira suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di génne mboolem ñi nekkoon ci biir biir suuf mboolem ñi nekkoon ci kaw asamaan ñëpp nekk ay jaam ci kanamam keroog ba ñuy nekk jaam ci kanamam nuñ koy nekkee uratan xurulan xuffaatan yonent bi alayhi salaam nee na ñëppay génn ak yaramu neen yeneen tekku dul yeneen ñëppay génn ak yaramu neen ba ba yàlla subhanahu wa taala di waddu ña ca neex yal na yàlla boole ci ñuy waddu suñu yaay Aysa ne ko ah yi mu yàlla yónni góor ak jigéen yaramu neen mu ne ko Aysa bisu keroog ñàngaay ba paase na nit di xalaat naan kii góor la wala kii jigéen la mi ngi noonu kii góor la wala kii jigéen la loolu kon mbokk mi ngi noonu looloo tax jaam bi nangul sa njaam ñu ngi koy wax ak mbokk jàkka ji démb da ngay gis ne waa ji julli lu muy wax heure booru ko subhana rabbiyal azim sell ñel na sama boroom bu màgg bi boo siggee ah sami allahu liman hamd rabbana ayoo suñu borom walakal hamd boo sujjootee teg sa ji ci suuf subhaana rabbiyal aala sell ñel na sama boroom bu kawe bi te mooy julli yépp yaa ngi saxal sa njaam di saxal moomeelu borom bi jalla wa ala borom booba nga xam ne nii ku ko doyloo mu doy la yal nañu yàlla doyloo yal nañ doyloo borom bi mu doy ñu àdduna ak alaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما barakallahu fikum suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne fa amma allazina amanu bu dee ne ña nga xam ne day dañoo gëm wa amilu salihat daa di jëf la nga xam ne nii moom mooy jëf yu yiw ya fa yuwafihim ujurahum borom bi dana leen matalal seeni pay wa yaziduhum min fadli dana leen dolli ci ngëneelam wa amma allazina stankafu bu dee nag ña nga xam ni dañoo jomb jomblu wastakbaru ñu rëy rëylu fa yuazibuhum azaban alima dana leen mbugal mbugal mu tar wala yajiduuna lahum te duñu am ñel leen min dunillahi waliyan wala nasira gannaaw yàlla ku leen di féetewoo wala mu leen di dimbali yaa ayuha nnaas e yéen nit ñi qad jaakum burhanu min rabbikum dikkal na leen day lay bu bawoo ci seen boroom lay yu leer yu bawoo seen boroom wa anzalna ilaykum nuuran mubina wàcce nañ jëme ci yéen leer goo xam ni leer gu bir la mi ngi noonu fa amma allazina amanu su dee ña nga xam ne dañoo gëm fa amal lazina amanu billah bu dee ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla wa'tasamu bihi ñu daal di moy ci yàlla fa sa yudxiluhum fi rahmatin minhu dana leen dugal ci yërmande bu bawoo ci moom wa fadlin ak i ngëneel wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima dana leen jubal jëme ci moom li nga xam ni mooy yoon boo xam ne yoon bu jub la mi ngi noonu bokk suñu boroom day wax ni daa bind nit ak jinni bal ak malaaka ak lu mën a doon ngir mu jaamu ko ñooñee nga xam ne dañoo gëm lool daa di jëf jëf yu baax yeneen yàlla santoon allazina amilu salihat mooy ñi nga xam ne la leen yàlla santoon def nañ ko la leen yàlla tere woon bàyyi nañ suñu borom mu ne ñii day danaa leen matalal seen pay dolli ci samay ngëneel loolit mu lay booleel ñaari mbir jullit foo mën a toll da ngay def effort ya nga xam ni moom nga man ci jaamu yàlla te bañ a woru woru mooy lan dem ba jàpp ne li ma defal yàlla day yeyoo naa ajjana déedéet tabaxal mille juma ubbil mille daara waaraatel un milliard yaa tax ñu dugg ci lislaam suñu borom mu ni maay dolli sama ngëneel ngiree nga mën a dog dugg ajjana yonent bi bu mu ko waxee saxaaba yi ñu ne ko même yow mu ne même man du ma dugg ajjana lu dul ci ngëneelu yàlla loolu it mbokk ak a neexoon dulit ñëpp a xam ko waaye malheureusement lan moo xew tey ñu bëri dañu ne Cheikh Ousmane day li mu liggéeyal yàlla man moom laa yaakaar bu payam génne yowmal qiyaama ñun ñëpp danañu ci mën a yóbbaale mbokk loolu fuñ ko teg ndax yàlla ko wax ndax yonent yàlla moo ko wax kan lay jagleel ko taa foofu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne mbokk lu bëri li ñuy waxal sunu maam yi waxuñu ko de wallaay lu bari li ñuy waxal suñu maam yi waxuñu ko maa ngi fàttaliku benn góor gu ñu wax Hadi Diop ci Pikine toog nag moom mu nettali ma benn góor goo xamee ni nii ma nga nekkoon ca Tiwaawoon mu ni daf ko dafay dem ci toolam nee na gis koo xam ni dafa toog ci benn yoon bu xar nee na mu dem lu yàgg ñëwaat gis ko mu toog mu naa kee da jàmm dalu ko kee da jàmm dalu ko daal di ñëw fekk ko kii kan la ñu ne kii mooy El Hadj Malick El Hadj Malick bi nga xam mu ne ko waa suñ bi lan la mu ne ko ah man de ma doon doxante ba yegg si fii yoon bi xar ñaar may xalaat naa jaar ndeyjoor wala càmmooñ sama xel ne yar su ma dékkee yowmal qiyaam ndax ndeyjoor la ma malaaka yi jaare la wala càmmooñ ba ma toog a toog fii na am loolu mbokk la ñuy wax waaye da ngay gis ne doomu aadama yi keneen koo xam ne nii ñu ngi nekk suñu jàkk ci Père Sakho nekk na dem na benn jàkk fii ci Dakar benn imam di wax naan nit ñi nañ ragal yàlla mbugalu yàlla benn kilifa gu mag na ko waaye sëñ bi bàyyi ñu waay quota El Hadj Malick ñun ñëpp xaj nañ ci xoolal mbokk ñaari wax yi su ko defee dañu leen di gëmloo c'est duñu sax bëgg di tudd ay tur waaye nag dama leen di gëmloo ni nañu moytu di topp la nga xamee ni nii moom la nit ñi di wax ci mbooloo yi ak daje yi lu bari ci nit ñi ñu ngi askandoo ci sunu maam yooyu ñuy wax mosuñoo jàng seeni téere dañuy dégg nit ñuy wax rek loolu di ay riirandoo waaye mbokkoo sunu maam yi waxuñu woon nit ñi lu dul dem leen jaamu ji yàlla ku ci wax leneen nit da ngaa juum képp ku wax nit ñi leneen lu dul ne jaamu leen yàlla topp yonent yàlla xamal ne da ngaa juum waaye la nga xam ne moo nekkoon seen jubluwaay mooy jaamu leen yàlla bu leen ko bokkale ak dara loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala kon ne ki gëm def lu baax dinaa ko fay dolli ko ay ngëneelam amma ñi nga xam ne dañoo rëy rëy lu woon jàpp na ñoom soxlawuñu jaamu yàlla da ngay gis ko taxaw naan waaye man man mënumaa julli ah man day mënumaa julli sax donte ne jàpp ne na mbooloo mu bëri mu leen di yóbbu aljanna borom bi subhanahu wa taala ne ñooñu képp ku réy réylu jomb jomb lu jaamu yàlla nee na ko mel noonu danaa ko mbugal mbugal mu tar te bu ñëwee yowmal qiyaam dafa fekk keneen ku koy féetewoo wala keneen ku koy dimbali du muhammad du jibril du kenn loolu mbokk ngalawaay na leer ci seen bopp yi suñu borom yàlla mu ne ay yéen nit ñi am na borom xam-xam yu ne yaa ayuha nnaas day yóbbaale jinne yi ay yéen nit ñi dikkal na leen burhaan min rabbikum lay yu leer yu amul benn sikk sakk mooy alquran preuve yu leer nañ pour wane ni kay tedd alaxira mooy ki jaamu yàlla buñ ko bokkaale ak dara kay torox alaxira mooy ki defut loolu lay yu leer yu bawoo ci seen boroom bawowul ci président de la république bawowul ci chef d'état-major des armées mi ngi bawoo ci seen boroom wàcce nañ ci yéen it ak leer leer goo xam ne leer gu biir la muy alquranul karim moom wax bi leer la ca day leeral yoonu njub loolu it muy julit af awa man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas mbokk alquran mooy leer comme borom oto bi daw guddi am ay projecteur yoo xam ne moo ko jiitu di faar yi ko jiitu di ko won fi mu war a jaar fii cent kilomètres cent mètres ci kanam wala lépp loolu alquran it naka noonu moo naan jullit bi nii nga war a jëflanteeg say soxna say doom nii say waajur nii dëkkandoo nii da ngay atte nii nga war a atte sa digganteeg yéefir yi nii ni ngay jaamoo yàlla nii loole ñu bàyyi ci xel bu baax muy nuuran mubiina borom boobu subhanahu wa taala nag ni ña nga xam ne dañoo gëm yàlla daa di doyloo yàlla mi ngi noonu mooy ci yàlla bokkaale ko wuñ ci dara waxtasimu billahi huwa mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir suñu borom mu ne ay waay julit mooyal ci yàlla mbokk jàpp mooy nga jàpp nii dama jàpp nii poto bi waaye ngoy ñoom bilal cam ñu daan dem ci garab yi waaj a daanu booy ngoyee ci branche bi mooy booy bàyyi di daanu ngoy mooy loo xam ne da nga caa jàpp ne booy bàyyi di daanu bokkul ak jàpp kon mooy leen ci yàlla muy wañe ne su ngeen bàyyee yàlla amatu leen fu ngeen mën a jàpp wa'tasimu billah su ngeen di yaakaar na doon yaakaar yàlla su ngeen di ragal ragal yàlla adduna ak alaxira ñu mel nii day borom bi mu ne danaa leen dugal ci yërmaande ba bawoo ci man yërëm leen adduna alaxira mu tabba leen aljanna te mooy yërmaande bi gën a màgg bu yàlla di waajal ña ko gëm danaa ci dolli it samay ngëneel comme ni ngeen ko waxee sànq donte ne ni bokk na ci gannaaw yërmande yàlla ci àjjana ngëneel gu màgg te mooy yàlla may leen ñu gis seen borom jalla waala lillazina ahsanul husna wa ziyaada mooy gis ga ñuy gis seen borom jalla waala borom bi it mu ne danaa leen jubal ci siraatal mustaqim benn yoon mooy jubale siraatal mustaqim muy téere bu yàlla bi ay yow jullit mi taxaw sa kanamu borom dix-sept fois ihdina siraatal mustaqim jógal dem fa ñuy tafsiré jógal dem déglu téere bu yàlla bi téere bu yàlla boobu moo lay jubal ila siraatin mustaqim la koy leeral muy sunna yonent bi moo tax borom bi ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim lu waral loolu mooy yonent bi mooy jàngale alquran mooy jàngale lay firi alquran yal na yàlla dugal ñu ci yërmandeem ci jubal ñu ila siraatin mustaqim
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بارك الله فيكم suñu boroom jalla wa ala mu ne yastaftuunak ñi ngi ñëw di la sakku ak ubbeeku qulillahu yuftiikum fil kalaala nel yàlla day mi ngi leen di ubbee ci kalaala koo xam ne bàyyiwu fi ay wayjur bàyyiwu fi njaboot in imru'un halaka benn waaye ngi faatu na laysa lahu walad amul doom ay amul doom sët sët ila axiri wa lahu uxt waaye na ñeel na ko benn sœur falaha nisfu ma tarak sœur boobu di jigéenam boobu nañ ko jox genn wàllu la frère am ba bàyyi wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad ku góor ko moom bu dee ku jigéen kaa faatu alal jépp nañ ko jël jox ko ko su dee soxna sa bàyyiwul doom fa in kaana tasnatayni su dee ne kay ñaari sœur ñoom ñooy donn seen càmmiñ fa lahuma sulusaani mimma tarak dana leen ñeel ñaari ceer ca lam bàyyi ay alal ja bu doon ñetti junni ñaari junni yo ñoo ko moom wa in kaanu ixwatan rijalan wa nisaa suñu nekkee nag ay frère ay ak i sœur góor ak jigéen kon fa li zakari mislu hazil unsayayn góor gu nekk nañ ko jox cëru ñaari jigéen yubayinu allahu lakum an tadillu yàlla ngi leeral ñeel leen ngiree ngeen bañ a réer wallahu bi kulli shay'in alim yàlla day bépp mbir ku ko xam la mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne yow yonent bi ñi ngi ñëw di la laaj yastaftuunak te ngalawaay yow julit góor góorlul ba sa diine ji loo ci xamul koo yaakaar tana na la nga dem laaj ko ko góor ak jigéen nag suñu yaay Aysa nee na rahima allahu nisaa al ansaar maa manaahunna alxayaau an yatafaqahna fi ddin ewa yal na yàlla yërëm jigéen ansaar jigéen ñu bëri woon kersa lool waaye seen kersa googee day doxul woon ak seen diggante ñu dem laaj seen diine ba comprendre ko dañ daan laaj laaj yu sensible kenn ci ñoom ñëw na ci moom na ko ay yimi yàlla yónni yàlla day du rus ci dëgg sama borom kër bii dana dafa bëgg a ànd ak man ne ma fokk nga def position sangam ma ne ko loolu duma ko def te xaw ma ndax dagan nam daganul yonent bi ne ko ah kay su dee fa mu jëm mooy fa doom di sosoo position boo mën a jël baax na mbokk lii ku ko laajoon tey kilifa dina doon tat sob napp na ko kii ñàkki teggi na waay gis ngeen loolu ay misaal yu bëri ala kulli xaal ngalawaay jullit bu rus sa wàllu diine loolu gàcce du gàcce de doye di la yow jullit nga xam ne lii xamoo ko te warugar la ci yow nga ni rus naa koo laaj ak doye di la laaj leen ko bokk na lu ñu doon laaj yonent bi alayhi salaam lu jëm ci kalaala kalaala jàngoon nañ ay mbiram te début saar ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala fa muy wax in kaana lahu ixwa fa li ummihi sudus wala boog fa su su suñu borom subhanahu wa taala di wax ne am na lu wax ne fa li fa li kulli wahidin minhuma sudus fa in kaanu akthara min dhalik fa hum shurakaa'u fi sulus suñu borom day wax benn waaye ngi nii bi muy dee ay waajuram faatu nañ jotul am doom amul doom amul sët dee na léegi ñu koy miraas ñim bokkal ndey kese ñoom dañ leen di xool bu doon kenn la ñu jox ko un sixième mu alal bi bàyyi na juróom benn junni dañ ko jox benn junni bi góor ak jigéen nag ñoo bokk yem foofu góor ak jigéen bu dee ne seen ku ñu bokkal ndey kese daa dee te bàyyiwul ay waajur bàyyiwul doom góor ak jigéen a yem ñaar lañu dañuy jox góor un sixième jox jigéen un sixième su dee ëpp nañ ñaar ñu dajale ñaari un sixième yooyee muy sulus di un tiers ñu séddale leen quand même bu ñu doon téeméer loolu mooy ñam bokkal ndey kese muy erreur bu rëy nag boo xam ne ñu bari dañ koy jaawale miraasu doomi ndey ak miraasu ñu seen ndey dee miraasu doomu ndey bi góor ak jigéen di yem mooy ñoom seen frère moo dee wala seen sœur bu ñu bokkal ndey ñoo koy miraas amma seen ndey bopp bu dee moo dee ni ñuy donne seen bàyyi lañ koy donne góor ñaar jigéen benn na am loolu mooy ñi bokkal ndey tey nag ñu ñëw ci kaa boo xam ne ñii dafa bokk ak ñoom ndey ak baay wala ñam bokkal ndey ak baay nekkuñu fa ñoom bokkal baaye fa nekk su fa ñam bokkal ndey ak baay nekkee ñam bokkal baay duñu doon amma bu dee ñam bokk ñam bokkal ndey ak baay nekkuñu fa dañuy wooyu ñam bokkal baay ñooñu la yàllay wax fi mu ne su boobaa benn waaye ngi benn waaye ngi faatu na benn sœur la bàyyi amul waajuram nekkuñu fa ay doomam nekkuñu fi benn sœur daal la bàyyi bu mu bokkal ndey ak baay wala ñu bokk baay ñu ne xaaj leen alal ji jox ko sœur bi xaaj leen alal bi jox ko sœur bi léegi bu dee nag sœur bi moo dee nag te sœur bi bi muy dee amul doom ci seen waajur yépp faatu nañu ñu ne kon alal jëpp nañ ko jël dox frère bi alal jëpp jël leen dox frère bi waaw léegi bu dee mbooloo nañu nag masalan waa ji bi muy dee moom ñaari sœur la bàyyi suñu borom mu ne alal ji xaaj leen ko ñetti xaaj jël ñaari jox ñaari sœur yooyu bu ñu ëppee ñaari sœur it di vingt sœurs maadaama ay jigéen kese lañu dañu passé ñaari ceeru alal ji amma bu doon te ne nag bi muy faatu daa bàyyi góor ak jigéen na doon benn góor wala benn jigéen su boobaa suñu borom mu ne nañ jox góor gu nekk cëru ñaari jigéen su ngeen borom bi ngir màggal sax jigéen waxul na jigéen jël genn wàllu cëru góor waaye dina ne góor jël ñaari cëru jigéen muy wane cëru jigéen bi kenn du ko neenal kon góor day jël ñaar jigéen jël benn su boobaa moom dañ koy donn ni ñuy donne seen bàyyi bi leen jur lii borom bi mu ne maa ngi leen koy leeralal ngiree ngeen bañ a réer te xam ne yàlla lu nekk da koo xam te it mbokk wàllu alal heure buñ ci yegsee yàlla koy séddaleel boppam ndax doomu aadama ni mu bëggee wallaay da ngay gis ñu bokk ndey ak bàyyi di xëccoo alal noonoo ci ba xëy dee noonoo ci ba xëy dee léeg-léeg sax duñ ko jëriñoo mi ngi noonu maa ngi fàttaliku benn mbokk mo mo Momar Kan Mor yaakaar naa ko yor affaire consommation yi bokk na ci li mu doon wax mu ne sama njaboot nee naa leen bis bu ma fi jógee sama miraas bu ko yóbbu tribunal day tooñ nga ma te moom avocat la mu ne depuis trente ans xam naa kër yoo xam ne depuis trente ans bi may prêter serment ci avocat seen dossier mi ngi tribunal ki kenn réglé ko iñaante ngeen ko seen biir xëccew ko seen biir bu mujj yéen ñaan yépp ngeen ñàkk ko gis ngeen ala kulli xaal gëm leen ne yàlla moo moom alal bi bàyyi moomul alal de yàlla da ko ko dénkoon un million la un milliard la lépp ci bokk yam alali yàlla la bàyyi dem na ku moom alal ji yàlla nan la ko yàlla bëggee nañu xool ni ko yàlla bëgg ñu jëfe ko noonu bañ koo xool ci suñu bëgg-bëgg bopp mi ngi noonu mbokk li mooy suratu nisa di saar boo xam ne nii saar bu bëri ay atte la donte ne ne ki nga xam ne mooy Huzayfi al Yamani nee na ñëw naa guddi fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina fi la nee na ma jóg dem taxaw ci wetam muy jàng suratul baqara ba su mujj saay tànk di metti ma ne waaw xanaa kii moom da koo bëgg a def ci ñaari rakka ba mu demee yonent bi romb di romb di romb ba jeexal baqara ma ne alhamdulillah mu daal di ubbi suratul nisa ma ne musiba am na de muy jàng di jàng di jàng ba jeexal suratul nisa ma ne alhamdulillah mu ubbi ali imran xool leen nag mbokk téere yi ngeen yor xoolal baqara ali imran nisa ah te loolu gis ngeen nisa moo gën a gudd ali imran yonente bi alayhi salaam jàng ko avant ali imran waaye xoolal ci benn taxawaay Huzayfi nee na ndax da koo jàng kese déedéet heure bu yegsee ci ay yërmande ñaan yàlla yërmande heure bu yegsee ci ay mbugal ñaan yàlla musul ko ci mbugal bi loolu mbokk kooku mën yonente yàlla bi yàlla baaloon ne ko baal naa la say bàkkaar lépp loo nar a def ak loo mës a def da daan taxaw ci kanamu borom bi ba tànk yi di néew yi boole ko ak i jooyam ba yaay Aysa ne ko yu mu yàlla yónnee dalalal sa bopp yàlla nee na baal na la loo war a def mu ne ko afala akuna abdan shakura su ma yàlla defeeli lu mu deful kenn ndax du ma ko defal lu ko kenn defalul sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mbir bi waaye ñi jàpp ne yàlla da leen a may waaye yow lan ngay sant yàlla sa woto moo gën a rafet oto yépp sa kër a war a gën a yaatu kër yépp sa tool a war a gën a yaatu tool yépp sa compte bancaire moo war a gën a duuf compte bancaire yépp te na nga ne yàlla defal na la lu kenn defalul mbokk loolu nañ ci bàyyi xel bu baax yal na yàlla delloo ñu cay njàngilam yonente ba sallallahu alayhi wa sallam kon incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane